Vito Cocktail, une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille Free yep, nous ñu au ko Sénégal si anam yu sell naturel buy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi leen sawarloo jus bissap oh. oh dina yok sen katan boole si vitamine rek la ñi bëgg so naturel nak vito so accident pour fête bu monti doon te baax lol si yaxu gune ak ma lepp nak nekk si emballage civilisé tour ak jus vito da am choix te ñu déféré ko fi ci Sénégal si anam yu naturel te sel disponible partout au Sénégal vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 vito jus le jus fait maison alaykum asalaamaaleykum mbokki spectateur yu Sénégal 5 TV ginnaaw leen da ñu daleen a jàmm si xibaar suba si si tënk dañ koy daal joxe li nga xam nekk modi député ak assemblée nationale nek dem nag nit la nak di ki nga xam nekk moo Amadou mam Diop limi sax sàkku nga xam nekk modi député yi ñu rek da di xoolaat seen ay toogaay waaye itam fexe tam bu fi amone li nga xam nekk modi fukki fan ak ñaar seeru septembre 2022 modi fi da di amat bi tam askan dal daal leen fay togal seen ko jafe-jafe seen ko métti ñu daal di ko fay ay nekkee li ñi tam si wàllu xibaar bokku na ci nga xam nekk modi di sañana Marius Sagna la ko metti moy li nga xam nekk modi lu jëm si walu dëkk may nga xam da nga daal jox dëkk dëkk dañu fa dëkk daal jox nga xam rek mu di député yi momi tam ngi may saña bëgg bëgg moy daal ke électroniser ba wara naka dem rek mu daal yu koy li nga xam rek mu di taxi poubelle comme imagine lañ koy wone nonu

Sénégal euh, député nak am nañ fukki fan rek ñu daal di koy càmbar Edouard Cob fan la xam nak muy zone pinchu ndaw réew

dem itam sàllu xibaar bokk na tey ji leen daal di euh, amal li na xam ne que moo di bés bu ñeel rek euh, wàllu euh, ñi nga xam ni itam ñoo daal di jëm mag maanaam les personnes âgées tey ji mooy seenu ko bés ma ni kon ki na xam ne que moo di Marie Xemes Ngom nag mi ngi xam le ni dina daal di yokk rek budget bu daal di aju li nga xam ne que moo di si plan Sésame léegi itam si wàllu xibaar bokk na si nga xam ne que moo di intersyndical yi nag ñoo daal di soobu si grève ñen li nga xam ne que moo di privé bi nag ba waral rek mu daal xam nekk si nga ko bërëb ba waral rek ñu daal di soobu si nga xam ne que si grève maanaam li nga xam ne que moo di grossiste yeeg yi ñeel xam ne que secteur privé yi wàllum neex rek tëj nañ seen ay buntu léegi itam sàllu xibaar mbokk téléspectateurs yi lu doy wax leen daal di fekk euh, kenn ku daal di ñàkk bakkanam nag euh, ma ni kon nag démb nag fa nga xam ne muy Saloum ñaari tali oto bu yàqu la nga daal di fekk oto bi nag ba mu daal di yàqu toll na si juróom benn weer moom itam fa la doon daal di fanaan amul woon li nga xam ne moo di ay sax euh, seetu mu daal di li nga xam ne moo di génn àddina moom ki nga xam ne moo di waa jooju de du ñàkk ni daal di kat suñu joy xibaar mbokk yi loolu daal nar képp xibaar di fi seen télévision Sénégal 5 TV si kàllaama ko ci baax ma nis xiis daal di yëg si yéen si kàllaama na saxaan de vous informer sur les antennes de 5 TV. Bienvenue à tous dans votre flash d'information. Tout d'abord, avec l'ouverture de la session ordinaire unique de l'Assemblée nationale retenue, le président Amadou Diop sermonne à ses collègues députés. Le président de l'Assemblée nationale a appelé ce vendredi ses collègues ainsi euh, euh, mettre le sien nécessaire pour faire de ce cycle marathonnier euh, justement une œuvre de succès. C'est surtout l'épisode du 12 septembre 2022 où nombre de nos concitoyens ont été scandalisés par le spectacle offert par les élus. Au-dessus Au-dessus dans l'actualité, madame, monsieur, l'Assemblée nationale, Guy Sagnan suffisque des piles de documents et défend euh, les analphabètes. Ce dernier ligne du fait qu'en 2012, il n'y a pas justement de version électronique euh, de ces euh, documents aussi dans l'actualité, madame, monsieur, c'est le spectre euh, tant redouté au vu de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale le 12 septembre dernier et l'équilibre des forces entre le pouvoir et l'opposition. Il existe justement de réels risques de blocage du budget 2022. En effet, les documents sur la loi de finances 2023 seront livrés aux députés euh, hier. Ils auront 10 jours pour les décortiquer. Justement, les lignes budgétaires des ministères et différentes institutions de la euh, République et aussi le groupe parlementaire Beno Yakar. Euh, la démission de Aminata Touré est officielle. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mamdiop, a déclaré avoir reçu la démission du député Aminata Touré euh, du groupe parlementaire Beno Bokyakar. C'est donc officiel. Aminata Touré est euh, devenue non inscrite au sein de l'hémicycle. Et toujours dans le de madame, monsieur, journée internationale des personnes âgées célébrée aujourd'hui, marie annonce justement la hausse du budget du plan Sésama. Et aussi, madame, monsieur, la grève de l'intersyndicale des agents issus du secteur primaire, notamment ceux des ministères en charge de la pêche en agriculture et le lavage, touche les vétérinaires euh, privés du Sénégal. Ismaël Ndiaye et ses camarades apportent leur soutien aux membres de l'intersyndicale. Ainsi, ils ont décidé de fermer leur notamment les cabinets et durant toute la matinée de ce vendredi jusqu'à 15h. On se quitte, mesdames, et messieurs, avec le corps sans vie d'un individu a été découvert hier, vendredi, à Italie, près de l'école Aziar. La dépouille se trouvait dans une voiture en panne et stationnée sur place depuis sept mois. La victime est un, euh, sans euh, domicile fixe qui passait ses nuits sur place. L'enquête suit son cours. Et voilà, mesdames, messieurs, merci. Euh, C'était tout pour ce flash. Merci d'avoir suivi, mais également toute l'équipe enregistrée. Restez avec nous pour la visite de nos programmes. Dans un instant, votre rendez-vous d'information du week-end, week-end d'info. Merci beaucoup et bonne suite des programmes sur Sénégal 5 TVA. explosion de saveur dans une même et seule bouteille fruits yep you ñu Sénégal si anam yu sel naturel Pouille bi nag day wàññi si yaram tayit yi Il bi oh, oh dina yok sen katan bolé ci vitamine rek la ñi bëgg so naturel nak vito soo pour fête bu monti doon te baax lool si yahu gune ak mag lépp nekk si emballage civilisé te wóor ak jus vito da am choix te ñu defaree ko fi ci Sénégal si anam yu naturel te sel disponible partout au Sénégal vito fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité Keur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 vito jus le jus fait maison